nekk ci réew mi gis ne kat eh, ki nga xam mooy tête d'affiche bi mooy ki nga xam ne kat moom la ñi nga xam ne mooy waa nguur gi tingóo ma ba tax na daal ñu war a fas yéene jàmmaalu kuje gi gis ne Amadou am na xaajaloo bu nga xam ne am na waaye tam ci 2012 ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade daal di jàmmaloo kuje gi nga xam ne mooy ci Moustapha Niass ci socialiste yi Ousmane Tanor ak ki nga xam ne mooy Macky Sall ba tax na ñett ñooñu kat fas yéenoo jàmmaloo ki nga xam mooy Abdoulaye Wade waaye tamit dafa mel ni ci atum 2024 la xewoon kat dafa mel ni dafa amaat ndax Amadou Ba bii nga xam ne dañ koo daal di tànn moo nekk njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar moom muy lu njëkk muy daal di participer ci élection bi nga xam mooy élection tab naam kon nag dafa mel ni ñi nga xam ne kat ñooy ku jegi ñoom bu fekkee ne bëgg nañu am dara xanaa kat ñu daal di xool ne kat kii nag moom expérience ci wàllum élection présidentielle amu ko kon ci foofee daal lañ ko nar a jaarale kon ñu gis tamit am na ci loo xam ne daal naam ci jamono ji nga xam ne askan métti na ci wàllum dund ci wàllum politique ak li nga xam ne daal mooy illa ju dëgg muy daal di wàllum paj mi kon ñu gis akam discours bi nga xam ne kat moom la ñu xaar ci moom moom ci boppam moom moo ko war a daal di yaa créé ñi nga xam nag mooy lëkkaloo bi dox ci diggante majorité ak ku jégi loolee sax daanaka yàgg na lool dafa mel ni safar waaye ku jégi ñoom la ñu bëgg mooy freiné ki nga xam mooy Amadou ci premier tour ñoom ñi nga xam ne ñooy bi ñoom ñu bëgg koo jéggi ki nga xam mooy Amadou moom ñëpp bëgg koo dóor ci premier tour naam waaye tamit ku jege bu deful nànk rek nar na daal di fëq ay buntu kon tam fexe ba ñi nga xam daal mooy ñàkkum expérience ci li nga xam ne mooy élection présidentielle bii Amadou dugg ñoom ñu mën ko cee dóor kon candidat wu bennoo ak li nga xam mooy ku jege ñoom ca nga xam ne daal la ñu war a privilégié mooy ay débat d'idées ak li nga xam ne daal mooy ay programme ak i perspective économique kon tamit muy ci pouvoir bi wala ci yaa ku jege gis ne kat premier tour naam lu am solo la waaye tamit bàyyi xeexante bi xaxarante bi ndax gis ne loolee amalul njariñ réew mi